Rewmi 24 kan TV dal leen ak jàmm mbokk yi ngi di nuyu ci di leen siyaar ci image yu doy yi ngeen gis ci di honorable député Guy Marius Sagna demoon tey jii ni visite di Papa Alé nga xam bañ ko libéré yàggul mu doon lu rafet loo xam ne Guy Marius daal na du def lu mel relation la am ak ñu baax ah, ñi ci dëkk bi ñëpp ñu gis ne ko xam xam ko nga gis ne wér gi yaramam sooxee na lool gis ngeen image yi mu triste daw yaram lool nga gis ko nii nga xam ne wér gi yaramam daal kon pap ale bu yàggoon ci euh, kaso bi dina doon lu doy waar doy waar doy waar euh, ñeneen ñi nekk ci kaso bi tamit di leen ñaanal yàlla liberté xam ne kaso jombul kenn waaye rek lu metti la li nag li ko waral mooy njiitu réew gu bon koo xam ne daal euh, moom saa su ne daal da ngay nekk ci li ko neex wala mu daal di tëj sa gémmiñ loolu la ñu nemmeeku jaa ngeen jëf mbokk yi image yaa ngoog kooku di Guy Marius